d'ici quelques mois euh, waa Pastef ban la ñu war am. Euh, waaw moom mooy. se nangu lu lu lu am ni xam ne carrément il est temps ñu concentré ci beneen xam ne kii du nekk candidat est que ñu bari lu ñuy ruumandaat ci suuf naan Diomaye Faye ci boppam n'est pas le candidat de Pastef mais am nañu beneen stratégie boo xam ne waxuñu kenn mën nañoo xaar à deux jours ou trois jours euh, ci vote bi soo ko joxee. li nga xam ne mooy ndigal comme ni nga koy waxee. waaw ndigal waaw mais mais mais fi nii. li nga mën a wax mooy ci lu visible gu Ousmane Sonko dafa defal nguur gi euh, liñ naan bii tànk du laal bii daf da koy gaañ xam nga bu ñu bëggee jàpp Ousmane mu tegal leen Diomaye bu ñu bëggee jàpp Diomaye mu tegal leen xam nga jeu boobu bii tànk du laal bi mais il faut distinguer deux temps en fait avant la proclamation de la liste des candidats et après la proclamation de la liste des candidats c'est-à-dire que à l'état actuel il faut ñu toog Ousmane mën na am candidat avant ñuy proclamer comme mën na am candidat après proclamation et c'est ça tout l'enjeu parce que usman mën na bàyyi ba ñu génne liste bi ci biir liste bi mu tànn kenn loolu mën naa nekk est-ce que maanaam et d'ailleurs moom lay Cheikh euh, Omar Tall mm-hmm. di wax bu sans limite Sen mhm. TV mu ne on peut sortir Sonko du jeu électoral mhm. mais on peut pas le sortir du jeu politique ça c'est vrai il est incontournable il est incontournable kon donc bii tànk du laal bi da koy gaañ sonk loolu la leen di tegal bu dul avant ñu génne liste yi donc après ñu génne liste yi maintenant léegi nag loolu mooy ub bopp gaañ xamuñu xamuñu fan moom xam ñoom nañ ñoom la ñuy bëgg a def. voilà bëgguñu kii doon candidat wala képp ko tax ci moom. voilà mais ñoom xamuñu la mooy stratégie Ousmane. très bien xamuñu stratégie ba pare euh, mënoo téye ñëpp tamit est-ce mhm. te pour le moment li ma jàpp ni ma gisee affaire yi mu dem soo mettul on sera autour de dix candidats maximum est-ce te di candidats yëpp mënoo wax ni ñëpp daanaka. ci côté na ngi féete parce que xam nga fondamentalement euh, xam nga dafa am benn bloc boo xam ne da koy génne mooy PD euh, ñoom Amadou Ba PDS taxawu et cetera Idrissa Seck et cetera. Mhm. c'est-à-dire que ñooñu day am beneen bloc boo xam ne bu gars yi déposé. Mhm. Macky Sall du mën a éliminer ñëpp même bu fekkee dafa éliminer ñi nga xam ne Pastef nañu bokkoon it mën na am keneen ku dagg ci langue nga xam ne ni vu ni connu bu jàll pare na kenn sóoraale ko kenn sóoraale wu ko te kooku bu xësee ba jàll bu fekkee candidat Ousmane dañu ko téye Ousmane mën na dem négocier ak moom daal di koy joxoñ maanaam fii daal li ma la bëggee expliquer mooy gars yi lu ub seen bopp mooy dañu doon atte ñàkkal Ousmane pour mu bañ a bokk mais Ousmane même bu bokkul it il ne sera pas passif ci élection yi léegi nag Ousmane fan lay pël c'est ça la grande équation moo tax euh, la xewoon Firawna ak Moussa day xam ku judd ñu rey <laughs> xam nga foofu la ñu mujjee yi ku judd ñu rey. maanaam deux cent yi. voilà la lëkkale moo bare. très bien ku judd rek ñu rey waaye comme li li wolof yi di wax. xaw ma guy gay nekk xaw ma lan lawbe du ko gis ba koy yat mhm. et cetera borom waaw waaw mi suñu borom suñu ah. borom noppi na ba pare ñoom perte nañ ba pare <laughs> ñoom ñàkk nañ ba pare mhm. mu toll nii euh, dama koy faral di wax te duñ ci bàyyi xel gis nga su fekkoon Ousmane moo bokk euh, dóoree sax ci lay gën a oyof que bu Ousmane demee wuti buñ ko àttalee ñàkkal mhm. ci ñaari affaire parce que Ousmane bu bokkee Euh, dana am ñoo xam ne danañ ko woteel dana am ñoo xam ne duñu ko woteel mhm. mais Ousmane bu bokkul injustice la comprendre même ñi nga xam ne sax bëggoon nañ ko dumóoy bu joxoñee feneen dañu fa dagg sachant que les sénégalais dañuy voter par par par émotion ba pare élection yi ci lay gën a amee bayre c'est-à-dire que ñoo xam ne sax yoon nekk ñu ci woon sax danañ xëy nekk ci ndax actualité bi léegi dootul élection yi mais atte ñàkkal Ousmane mooy doon élection yi. kon Ousmane Sonko mu ñàkk bañ a bokk day gën a métti ci ñi. day a métti ñoom ñoom bu ñu xamoon waaye nguur gi bu ñu xamoon dañ koy bàyyi mu bokk mais bañ koo bàyyi mu bokk du ko atte ñàkkal dana tax duma yi gën a métti xam nga lu tax parce que déjà ñi nga xam ni dañuy jëppi régime bi. danañ ko dem sotle même bu fekkee sax naruñu woon woteel Ousmane danañ ko woteel parce que sénégalais yi bëgguñu loolu deuxièmement ñoo xam ne seen yoon nekk ci yoon en temps normal lijjantuñu Ousmane lijjantuñu Amadou Ba léegi sax seen yoon da ciy nekk parce que ñu dañoo jàpp ni ñii liñ bëgg a def nii du dëgg du yoon te mm-hmm. sénégalais loolu rek la mën sénégalais bëggu injustice très bien euh, dama koy faral di wax du mbër waaye ku bëgg bëri la du mbër waaye ku bëgg bëre la su neexee nga ni sénégalais du bëre waaye ku bëgg mbër la. du bëre mais ku bëgg mbër la bëgg mbër bu la neexee nga ni euh, te ñàkk ci euh, ci Ousmane Sonko ci nga koy mm. xamee. kaaw Ousmane Sonko ni mu demee nii aura bi Ousmane Sonko depuis affaire Sweet Beauté ba léegi. Mhm. moo lay wane euh, li l'homo sénégalensis doon. dañoo bëgg bañkat. voilà ñoom. Mhm. Euh, du ñu mbër mais ñu bëgg bëre nañ ou bien nga ne boog du ñu bëre. mais ku bëgg mbër nañ. d' accord alors ñu dem aussi ci beneen candidature boo xamante ne au sein de sa coalition il ne fait pas l'unanimité muy Amadou Ba Amadou Ba jamono jii mi ngi ci séminaire intergouvernemental fële ci France tey sax tontu na ki nga xam ne mooy l'ancien premier ministre di Aminata Touré. Mhm. bu mu koy wax ni euh, di joxañ suñuy partenaires nañu arrêté di recevoir yemale ñëpp ci même pied d'égalité naan. Mhm. même su fekkee ni sax euh, dañoo nekkee pré campagne war l'état doit continu continuer. Mhm. alors ban Amadou Ba moo dem en France c'est le premier ministre ou c'est les candidats. oui mais les à la fois ah c'est la fois man bon ce que je désole ah. du point de vue de la présentation formelle ah ñun suñu ministre yëpp a dem boo demee France ñaari ministre ñoo jàkkaarloog suñu gouvernement bi yëpp même dans la symbolique ça ça me pose problème comprendre nga c'était une forme de colonialité que rien ne justifie quoi conseil interministériel de quoi daaw daaw amoon na fi daaw mais non non ça veut dire que le euh, l'acte euh, relève d'une forme de colonialité quoi moo tax ma ne la les deux à la fois est-ce que comprendre nga. Mm à la limite à la limite si on veut passer en revue euh, le portefeuille de co euh, coopération aujourd'hui c'est la France qui a davantage intérêt à nous que nous à la France en fait. cest dire que France moo ñu mënul baax mais ñu mën nañ ko baax. vu le contexte sous-régional c'est-à-dire que njëriñ bi France di am ci ñun moo ëpp fuuf ñun njëriñ bi ñuy am ci moom kon donc bu fekkoon sax dañoo war a gise mais ñoom ñooy ñëw du dëgg mais ñu dajale surtout gouvernement bi yëpp dem ba ñu demee foofu toog gouvernement France ñaari ministre laa ci gis ah ñi des ñëpp ay euh, sama classe gi nañu rek ñëw toog est-ce que comprendre donc même du point de vue de l'image sa pose problème deuxièmement euh, lii dafay révéler confirmer quelque chose que Amadou Ba est le candidat de la France xam nga yàgg naa leen koy wax bàyyiwu leen ci xel Euh, même Macky Sall su renoncé troisième candidature il y deux facteurs en fait le premier facteur c'était le mouvement révolutionnaire et pour dire plus précisément c'est Sonko mhm. moo ko ko xañ mais xam nga deuxième bi ku ko ko xañ dëgg dëgg dëgg non c'est qui hmm? c'est la France xam nga France dëgg dëgg dëgg kan ko xam dëgg dëgg Ndongo Sy Ba. Ndongo Sy Ba. waaw kon donc euh, d' abord lii. dafa kon le président Macky Sall on l'a tordu la main. ah oui oui oui oui à un xam nga Souleymane Faye nee bu fekkee dafa am looy bañ. ku la ëppul doole moo la ko tegul. Mhm. ndax li ñu ba gënoon bañ moo fi nekk ba tey. comprendre nga waaw moo fi nekk ba tey euh, et puis deuxièmement la France prend des risques démesurés. parce que le cet esprit de ce sentiment anti-français en fait France ñu ngi koy xam ba parce que du point de vue politique là je parle pas d'institution mais du point de vue politique dès lors que Amadou Ba est candidat moom dafa waroon am benn neutralité axiologique même si mën nga ma invoquer comme ni ngay wax ni l'État est une continuité et cetera mais est-ce que le président Macky aussi. parce que moo waroon joué euh, moo waroon. voilà dissocié bu mu defee remaniement. waaw non non non mais ñoom premier ah, ministre bàyyi mu nekk candidat comme ça euh, mu que aussi n'a a beaucoup ñu waxoon loolu. mais ñun ñoo ko moom mooy li wax nii c'est les deux à la fois c'est-à-dire que ñun ñoo ko bëggee noonu mu nekk Amadou Ba premier ministre ak Amadou Ba directeur. amoon na tax parce que conseil interministériel bi ñoom dara waxul leen ne élection yi di ñëw seen sa même gouvernement moo fiy toog dans deux mois dañuy dem ay élection dans tous les pays du monde où les gens sont sages prudents bu waree dem élection à deux les freins est-ce que mooy évacuer les parce que yow xamuloo les xaw a prudent mm-hmm. comprendre parce que li ñu def nii dañu dem ay élection rien ne te dit que ce régime moo fi toogaanam déet et donc yéen li ngeen wax ni yëpp taxawul parce que am na benn dans deux mois trois mois lii lépp mën nga remettre en cause mm-hmm. donc yii sax en général dañ koy aj ba mu am stabilité ñu xam ne c'est nouveau régime il a cinq ans ñu teg affaire yi quoi kon donc du affaire état du point de vue euh, stratégie et développement moo leen tax a jóg dañuy politique et d'ailleurs boo xoolee la délégation man j'ai un ami ñuy dem Air France nañ jël jour boobu am naa ay xarit. te bàyyi Air Sénégal. waaw am naa ay air France xam Air Sénégal mais bon. je pense euh, sax Air Sénégal. je pense pense Air Sénégal. Euh, ci biir avion bi amoon naa ci benn xarit bu doon voyager jour boobu mais nee na presque soixante à soixante dix pour cent avion bi seen délégation la ñëw tu te rends compte pour aller là-bas ici rek en France signer a ak tout le monde est parti. tout le monde est parti contexte bu ñu nekk la nga xam ne. non xam nga lu may wax Burkina euh, dañoo créé. Euh, jamono ji euh, seen organisation boobu nag di commencer euh, envisager déjà am benn monnaie unique est-ce que c'est pour vraiment donner des garanties à la France. non non non politique lii dañ koy mbubboo rek xam nga mënuñoo jël xaalis Sénégal dem France di kii parce que boo xoolee ci biir yàlla na mi ku bokk ci avion bi. nee na même sëñ Madani Tall la famille omarienne mi ngi ci et cetera gars yu bëri ngi ci biir pour man Euh, dem politique yi la est-ce que mbubboo ko nag affaire institutionnelle bu ngoon jotee ñu dem seeti les parce que boo demee si fële les communautés alpulaar sont très et cetera. Mhm. parce que euh, Amadou Ba je pense que ci loolu lay mise parce que après bi ñu may expliquer affaire yi fa dem pour man loolu la quoi dem seeti diaspora parce que diaspora moom euh, ñëpp xam nañ ni révolution ba fa lay commencer. Mhm. mais nag bon comme il y a encore des zones et pour man c'est pas anodin. Mhm. que voyage bi ana. Thiaba Madani lu muy wuti eh, ci conseil interministériel France bay ànd ak et cetera donc ça va dire loolu quoi dañuy politique rek quoi. Mhm. comprendre nga mhm. euh, waaw sunu paa bu baax bi sax. Euh, maa ngi koy nuyu de passage Mbaye Pierre sax mu ngi ci délégation <laughs> et cetera kon donc moo lay wan rek ni. Euh, pour sommet intergouvernemental moo lay wan rek ne. li Mimi Touré di wax ci benn côté bi elle a raison. Mhm. ça veut dire que dañuy mélanger les torchons et les serviettes. Mhm. comprendre et que en réalité lii dañ ko mbubboo rek mais ñoom dañoo dem politique yi. Mhm. Euh, et là day am rupture de xam nga yu mel nii ñoom dañ koy def defe ni ñu ngi ci bonne voie or lii day gën a révolter Sénégalais day tax Sénégalais gën leen metti. gën leen mere parce que Sénégalais yi en fait seen particularité mooy mën ngay def dara duñ la wax dara. nga defee ni yaa ci nekk fekk yow ñu ngi lay xaaral benn bis. est-ce que comprendre nga. bu patient la. peuple bu patient la ba pare xam li mu bëgg te li mu bëgg comprendre nga léegi nag ñoom loolu ñu nekkee le principe de rupture d'égalité. Mhm. Amadou Ba nekk candidat ñeneen nekk candidat. mais ñeneen ñi mënuñoo bouger fu ñu bouger ñu buntu xatal leen Amadou Ba moom nekk ci avion yi nekk ci tournée yi. parce que Amadou Ba aussi il est premier ministre. waaw waaw mais non moom laa bëgg expliquer rek. c'est-à-dire que c'est contre-productif pour Macky Sall. li muy bañal concurrent Amadou yi. ñu koy nangal Amadou loolu buñ ko defee nii euh, ça peut profiter à Amadou au contraire daf koy gën a yàqal. Mhm. dañ ko war a bàyyi mu d'ailleurs mooy li nga wax ni pour man la meilleure euh, logique. Mhm. aurait été qu'il soit déchargé. Mhm. Euh, kii bi mu ñëw. mel comme ñun ñuy daje Kousanaar. Mhm. Euh, di di daje Koumpentoum. di di lekkandoo forox caaye. <laughs> voilà muy yëg yooyu mais nii nii nii euh, mais yëpp dafa nar a. d' accord retourner contre ñoom. alors jeex naa bi jeex na tàkk si la mu ngi def si ñi c'est fini tey moom on a fait deux heures d' émission alors que d'habitude ah c'était une heure. Ah juste pour dire que internet yi tellement ah ils étaient euh, ils te ñi ngi rafetlu di di di di rafetlu bu baax a baax waxtaan beeg xam-xam bu fi génn. ñu jeexalee ak les 4 millions de 4 millions de par an waaw benn bokk yaakaar ne nañu ils ont pour le moment 4 millions de par an ah. ko jàngatee. ah waaye loolu de c' est tool. loolu matal nañu bu ko yàlla dogalee euh, semaine bi dans la semaine euh, bu ko xam nga déposé nañ suñu caution ba pare. Mhm. Euh, bu ko yàlla dogalee dans la semaine ci nañuy déposé suñuy parrainage avec le seul élément que xam nga sëriñ. bi mooy deuxième expérience am ci affaire parrainage. Mhm. xam nga législative dafa bëggoon a dem ñu recalé ko. Mhm. Euh, Serigne a beaucoup appris des élections législatives. Mhm. ñun dañoo gëm. am na expérience politique très bien ñun dañoo gëm ni parrainage bi soo ko defaree bu baax. te vraiment liggéey nañ ci liggéey boo xam ni. Euh, xaw ma doublon externe de. mais doublon interne moom amuñu ko. d'accord c'est-à-dire que benn carte d'identité ñëwaat ñaari yoon. loolu ñun amuñu ko. te matal nañu. montant yi ñuy wax. Mhm. incha allah incha allah. yàlla euh, dans la semaine ñu dem déposer. Mhm. dégg et d' ailleurs même tey jii sax euh, sëriñ ñu ngi woon Ziguinchor. d' accord est ce que yow yaa directeur de campagne bi est ce que yaa ngi envisager su fekkee am na un mm. membre. absolument bien sûr maa leen ñaan ngeen dem. leader euh, de l'opposition mais bu fekkee au cas bu da ngeen dem quatre figures. Ah. mu am beneen membre de l' tour da ngeen koy appuyer voilà. waaw mais ñun. hypothèse bi ñuy travail mooy dañuy dem. waaw mais c'est des hypothèses. Ah. ma je pense. waaw waaw mais am koo xamante ne moo egg deuxième tour avec le le le le la ah. coalition sortante da ngeen koy jàppale. Ah, wala da ngeen jàppale mais mais mais mais mais euh, su fekkoon euh, li fi nekk nañ bëgg. mu continuer fi. Mhm. mais su boobaa kon ñu duñu nekk candidat sax. kon da ngeen koy jàppale. <laughs> comprendre kon dañuy dem ci Amadou Ba c'est parce que bëgg nañu système bi pousse ñu ñëw dawal. loolu la ñu bëgg. mais tontu ma de manière plus claire. c'est-à-dire j'ai pas bien compris. maanaam ça veut dire su fekkee dafa am benn candidat de l'opposition bu egg deuxième tour ak Amadou Ba je suppose. oui da ngeen koy jàppale. le candidat de l'opposition. ah mais non non ñun lay nekk en fait. <laughs> mais il faut waaw ah, d'accord yéen lay doon. <laughs> le prochain xanaa ah, incha allah bu ko yàlla dogalee. Mm-hmm. le prochain président du Sénégal incha allah si sénégalais yi àndee ce sera Serigne Boye. Mm-hmm. ndax moo gën ci Macky. moo gën ci Sonko ba pare moo gën ci Sénégal. ba léegi waxam lu tax mu gën leen mhm. si Sélesty mhm. temps bi jeex na tàkk vraiment ça a été mhm. un plaisir. absolument c'est que yow waxtaan. parce que lu ma gën a neex ci waxtaan bi mooy dañoo découvrir la personne de Sélesty. Euh, mais nga may ma euh, balaa <laughs> maa tëj ma baale nga nga tàggatoo nga tëj ba pare ak ñu ne doon seetaan. waaw xam nga euh, ku teel a ñàkk ay waajuram. moi je suis très ma mère. sunu borom dogal. ba ma accès gu ma fi ma àgg ça veut dire que samay mbokk mais surtout ay jàmbur yu bari mhm. téye nañ ci ça veut dire que man bu dul woon sénégalais mhm. moom làmbaay ñaaw parce que jaar naa ci dëkk yu bari maa ngi këram euh, nu ma mel rek sénégalais yi la mhm. parce que c'est pour ça que